bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wakafa wasalaamun ala ibaadihi alladina stafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk yi yi ci al ibaadatu wal xidma maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di dellusi ci sunu jotaay bu ñuy faral di seq muy tontu ay laaj lu mat fukki laaj ak benn dikk fi ma fas yéene leen a tontu rek ci lu gàtt laaj bu njëkk bi dafa wax ne dafa am ñoo xam ne bu nit faatoo dañ naan ñan la ameel bor bu amee ñu wax ne ameel na leen bor am ñu ne gàddu nañ bor ba waaye léeg-léeg duñ ko fay eh, mën nañ ko bañ a fay sax ba jóge ba jóge fi ñoom sax ginnaaw nee nañ gàddu nañ ko de ñoom lañ koy topp ndax nit sañ naa gàddul nit bor ki wax ne gàddul na nit bor mooy bor bi mu waroon a fay moom moo koy fay kon léegi moom la moom la war moom lañ moom la topp léegi ki nga xam ne faatu na moom te am ku ne gàddul na ko borom ka ko wax lañuy topp bor ba léegi ñaareelu laaj bi day wax ne sarax ku dul ab jullit ndax sañees na ko waawatina ku nekk ci réew moo xam ne du réew jullit xëy na ñàkkut mm, jullit waaye mën leen bañ a xàmmee bu doon réewum jullit sax mënees naa sarax ku dul jullit sarax mooy euh, li di joxe ku aajowoo ndimbal te la joxe du farata bu doon farata asaka lay doon asaka moom kenn du ko jox ku dul waye sarax moom manes nako jox ko dul julit mom ki dimbalante la dugg rek dimbale nak ko won dimbal ko nak manes nako koo dimbal dimbale ko dimbalé dana ci am yool ñettal laaj bi dana nit ko dafa am nit ku yor rakam ba nopi bëgg takkat bëgg tak takk mom, mooy kon góor ini ni ku bokk ak jigéen baay am ku takk jigéen jooje ba noppi bëgg a takkaat doomi góor gi ndax dana dagan du dagan ndax bu ko defoon day boole nit ak bàjjanam ndax kee mu yor ba noppi bàjjani kii muy bëgg la te nag nit du boole eh, góor du takk boole nit ak bàjjanam loolu alquran dane ci lim tudd moom mooy boole mag ak ñu bokk daal ñu bokk baay wala ndey wala ndey baay yonent bi nag moo ko yaatal ne buñ boole itam nit jigéen ak yaayam ju ndaw wala jigéen ak bàjjanam borom xam-xam yi tënk ko niñ ko tënkee rek mooy dañ ne ñaar ñoo ñaari jigéen ñoo xam ne bu kenn ki doonoon góor duñ mën a sëy ñoom ñaar kenn du leen mën a boole loolu rek mooy tënk bi kon lee du mën a nekk ki yor jigéen mënut a takkaat koo xam ne jigéen ji mu yor bàjjanam la bàjjani lenqee nag la ñuy wax ndax wolof moom ci ay mbokk da ciy wax waxin xam ne du bokk lañ ci dëgg-dëgg bàjjanam bokkut ak ci moom waaye bàjjanam lenqe moo baayam ñoo bokk baay wala ñu bokk ndey wala ñu bokk ndey baay ñeenteelu laaj bi dafa wax ne koo xam ne dañ koy jox chèque moom nag mu yàkkamte jot xaalis ba tax mu jox chèque bi ku ko jox xaalis waaye xaalis ba mu koy jox nag day yées li nekk ci chèque bi doon chèque bi ñaar fukki junni la moom lañ ci bind mu moom ko nga xam ne bu ko yóbbu woon ca banque ba danañ ko jox ñaar fukki junni waaye moom mu yàkkamte tax mu jox ko nit ne ko jox ma rek fukki junni ak juróom-ñett wala juróom-ñeent bu ko defee bu ëllëgee moom mu dem yóbbu ko ci banque ba jël ñaar fukki junni loolu du du du du dagan ndax day dugg ci riba ndax xaalis lañ weccee rek. wecce xaalis la wecce xaalis boo xam ne benn la ñoo bokk bu noppi ëppalante am ci loolu daganut mook ma jox la ñaar fukki jën nga jox ma fukki junne juróom-ñeent rek ñoo am loolu la rek loolu doonut lu dagan chèque bi daal kiñ koy jox boole la dee jox na la jox lu tolloog li ne ci chèque bi waaye bu joxee lu ko yées du dagan bu la joxoon lu ko ëpp itam du dagan ndax yépp day dugg ci wàccee wàccee lu bokk te ëpplante am ci kon xaalis ak xaalis lu bokk luñ doon ba noppi ëpplante am ci seefa ak seefa wala dollar ak dollar wala euro ak euro ba noppi ëpplante am ci ci lay dugg te loolu mooy riba wala riba la juróomeelu laaj bi mu ne ndax jigéen ji gis mbaax ba du julli bu jàllee bam sangu ndax day fay julli yi nga xam ne jàll na ci diir bi mu gisee mbaax déedéet du fay julli yi koor lay fay waaye du fay julli loolu soxna Aïcha moo ko xamle woon bu yàgg-yàgg ne jigéen ñi dañ leen daan digal bu gisee mbaax bañ a julli bañ a woor buñ setee nag ñu fay koor te bañ a fay julli kon julli moom deesu ko fay jigéen ju toll ci maax eh, bu jàllee du fay julli koor nag bu fi doxoon dana ko fay juróom-benn laaj bi mu ne jigéen ñu bari dañuy nekk ci sëy ba saag ñu ne maa bëggoon bëggatuma <laughs> léegi mu ne góor gi kon nan lay def wala taxawaayu góor gi daal waaw dañ koo ñaan baat rek <laughs> dañ ko ñaan baat ku ñaan baat nag Euh, yi mën a yi la sañ bu nekkoon lu tax bëggatoo bu fekkee waxut lenn loo xam ne moom ak gàttañ lu la ci wàllu góor gi waaye dane daal moom daal xelam daal ak ak da ko da ko safatut daal daal bu dee loolu la wax rek waaye waxut lenn luy wane ne góor gi dafa am lum gàttañ lu wala lu ko war lum defut bu fekkee waxut lenn lu mel noonu lu dul nekko daal dama ni ko nit ñi waxee léegi dama cee gëstu sama bopp bu boobaa góor gi dana ko sañ a may baatam dafa wax dëgg yàlla de sëy moom li ñu ci bëggoon mooy nangam waa gi naan dama bu su gis sa nag kon kon kon baax na may naa la sa kon ci ci xol bu sedd ñu def ko ci njëkk loolu moo gën moo gën mu may ko ko kon bu fekkee nag moom góor gi sañ na fii nag moom ne ko ah ginnaaw de nee nga yaa bëgg génn ci sëy bi te waxoo lenn loo xam ne ak gàttañ lu ci sama wàll kon de mën naa koo nangu waaye ci kaw nag nga jox ma nangam loolu la ñuy wax summiku summikoo ci kaw nga jox ma nangam nga jox ma nangam de nag lu ko wax rek buñ joxtaane ba juboo ci rek sañ na ko sañ na ko loolu la wax summeeku bu fekkee nag dane ko lor sàngam a ginnaaw daal sëy bi nangam te nangam ak wax yu bari yoo xam ne daal gàttañ lu ci wàllu góor gi boobaa itam rek la gën la jaadu mooy góor gi may ko baatam foofa nag sëñu koo laaj moom sañut ne ko mën naa laa may sabaat ci kaw nga jox ma nangam sañu ko sañu ko da koy may baatam rek bu ko ko mayut jigéen ji foofa day dem ci yoon bu amee kilifa yu mën a digal kii mu def ko mu dem ci kilifa yooye bu fekkee amut mu dem ca yoon yoon moom bu gëstoo ba xam ne jigéen ji day loru ci sëy bi dana dindi dana dindi sëy ba te kenn du ci mën dara kon yooyu moo moo man nekk maa bëggoon bëggatuma daal Euh, foog naa bu dee dëgg ci jigéen ji moom te muy góor gu góor gu mat lam doon da koy may baatam bu dee ku ku mata a mat lam doon moom da koy may baatam te du ko laaj dara bu dee nag ku mat lam doon rekk yem ca te jigéen ji génn gi bëgg a génn itam loru taxut boobaa sañ na koo laaj dara bu fekkee loroo tax nag lor moo tax kon suñu ko laaj dara da koy may baatam rek laaj bi ci topp mooy juróom-ñaareel bi ne ndax xale bu jigéen eh, bu nekkul muskàllaf mënees na koo maye mënees na ko maye kay mënees na koo maye mais ndax buñ ko mayee itam borom këram faatu woon ndax dana ko dana jàpp yidda waaw dana jàpp yidda kay dana na koo maye ndax ko mayoon borom ko doon faatu dana jàpp yidda dana jàpp yidda moo xam seq nañ dara moo xam sequñ dara kon euh, xale bu ndaw bu jigéen manees na koo maye te buñ ko mayee itam borom ko doon faatu woon mu nekk xale it du tey moo day dana jàpp yidda juróom-ñeenteelu laaj bi mu ne am na euh, béréb yooyu Euh, jur ga ñuy lekk euh, ay ay machine lañ koy reye rey wala rendi bu dee rendi moom baax na machine bu rendee itam baax na rendi nag mooy rek dagg dagg fi nga xam ne fi la ñuy dagg ba deret ji loolu mooy rendi bu ko machine defee itam baax na defe ko loxo ak defe ko machine ñooyam bu dul rendi nag doon rey rey moom mooy mu dee rek te te dagguñ foofu ba deret jigéen génn moo xam dañ ko door lu diis ci bopp bi mu dee noonu waaye moom day meddi lay doon ndax lu dee la waaye du lu rendi waaye machine mën naa rendi bu dee machine a rendi dana dagan te am na am na béréb yoo xam ne machine la ñuy rendee te rendi lay doon te dana dagan Euh, fukkeelu laaj bi mu ne teggiini denc ku faatu daf mel ne daal seetlu ci fu bari ci béréb yi ñuy denc ñu faatu euh, yoo xam daal day nuru ay jaxasoo daal ak ñàkk sàmmonteeg lu mu jàpp ne ay teggin la waaw loolu day loolu day mel na lu am la te nun yàgg nañ ko jàmbat itam muy ci moom moo xam fa ñuy jullee la wala fa ñuy denc su mel ne fii nga xam na béréb yu bokkul la dañuy jullee fii jóge fi dem yóbbu ko feneen denc ko fa diir bi ñuy négee béréb yooyu yëpp daal bérébu teewlu la teewlu teewlu nag mooy ñëpp ne teg ku am lu muy wax mu di ko wax ci suuf te la muy wax it warut ay ñaan ak tudd yàlla ak yu mel noonu mu di ko wax ci suuf deug deug loolu moy moy moy teggin deug deug yi war am ci bërepp yoy mo xam fi ñuy négee ngir jullé ko wala fañ koy denc la foofu yëpp teewlu moo fara am ñepp né tek ñepp né tek waxtaan bañ di waxtaan sax nit ñu bari nak bu dañ na ci bërepp yoy di waxtaane dañuy waxtaane ci bu nekkoon ci yeneen bërepp loolu nak taxul mu déggo lool ak bërepp yoy ba ci njàng bi ñu yëkkati sax jaru ko jaru ko fenn ci ñaari béréb yooyu fi ñuy négee ku ñuy jullee wala fa ñuy dence te fa yëkkati sax jaru ko bérébu teewlu la bérébu ñaan la ñaan nag ku nekkee ñaanal boppam ku nekkee ñaan di ñaanal kii nga xam ne moom moo moo tax ñu ñëw fi jëm julli gi ak ñaan la waaye buñ koy négit mën nañ koy ñaanal buñ dem ba ko denc tam diir bañ fi nekk yëpp ñu di ko ñaanal waaye kàddu yeneen jërut mu fay jóg moo xam jàng lu mën doon la jëru ko ku ne lu muy def na ko def na ko defal boppam digganteem ak yàlla bérébu teewlu la teewlu nag mooy ak dal ak noppi maanaam bañ yëkkati kàddu ku nekk lu muy def mu defal mu def ko mu def ko ci suuf digganteem ak yàlla rek loolu dëgg-dëgg mooy teggi ni war a dox ci béréb yooyu fukkeelu laaj beeg benn te moo ci mujj moo ne ñaar ñu dencante boroom kër ak soxnaam te ñu boole woon seen alal yàlla dogal ñu faatoondoo alal joojee nan dañ koy miraase ndax dañ koy xaaj kii leela moom kii leela moom wala dañ koy miraas rek jox ko ña ko moom lu mujj li ma mënta nekk ndax bokkuñ ku leen di doon ñaar nit ñuy sëy buñ faatoo du na ñenn ñi ñu leen di doon du na ki du na ñi doon ku góor ki ñooy doon ku jigéen ki kenn ku nekk ak ña koy doon kon kenn ku nekk alalam daa war a daa war a bu dee nag bi ñuy boole seen alal xam nañu anam giñ ko boolee woon mooy bu fekkee dañ caa tolloole woon luñ ca def bu ñu tolloo woon luñ ca def kon moom alal ji ñoo ko ñoo ko ñoo ko bokk ñoo ca tolloole itam lañ cay am bu dee tolloo loowu ñoon lañ ca def nag waaye kon ne xamoon nañ lam ca def xam nañ nag kee bu doon ñetti xaaj moo def ñaari ki ci des def benn bi kon lu ma du juddoo ci alal ji koy séddoo buñ faatoo itam ki defoon ñaari xaaj yi lañuy jox ñaari xaaj yi alal ji ki defoon benn xaaj bi ñu def jox ko benn xaaju alal ji fii nag am na lool tubaab yi ñoom dañ koy def waaye jullit nag war na koo moytu mooy du ñox wax communauté de bien communauté de bien mooy ñaar ñuy sëy ñoo daal ñoom ñoo bokk seen alal rek noonu wax ko noonu rek euh, kenn ku ne duñu ñu xool lam ciy dugal rek lam ci dugalut waaye ñoo bokk seen alal noonu rek bu ki amee dërëm dugal ci ki am junni dugal ci ñoo ci am loolu moom bokkut ci doxalin woo xam ne leer la ci lislaam Euh, ay nit luñ mën di jege jege jege ku nekk lam moom moo ko moom kuy may moroom ja mën na ko may lu ko soob waaye nag dañoo war a xàmme ku ne lam moom ndax kenn ku ne lam moom bi yàlla dogaloon mu jóge fi am nañu yàlla wax ne ñoom lañ koy jox ñoo xam ne bokkuñoo kii mu seqaloon kii mu seqaloon am na ca wàll waaye am na ñeen ñu ci am wàll itam moo tax loolu moom communauté bien moom tubaab yaa ngi koy def ñenn ñi di leen ci roy waaye du lu jaatu ci ab jullit euh, ñaar ñuy sëy kenn ku ne day moom alali boppam ku ne la moom bopp nag lu mu cee defal ka ci des ñoo xam ne moo ko defal ci coobareem waaye war ñoo jaxas seen alal noonu rek ñu daal ñoo bokk alal ji rek bu doon nag sos dañoo associe ngir liggéey kenn ku ne day génn dara ci alalam ñu boole ko di ca liggéey boobaa ko ne lam génne dañ koy xam xam ne ñoom ñaar liñ génne kii daa génne xaaj kii génne xaaj wala kii daa kii génne ñaar ñaari xaaj ci ñett kii génne benn xaaj ci ñett ñu xam ko lu yàgg-yàgg ñu xam ne lu mënti juddoo ci alal ji itam noonu dañ koy seqe buñ fi bàyyi koy itam la juddoo ci alal ji yëpp ñu xam ne nii lañ ko war a seqi kenn ku ne lam waroon a am ña koy doon ñoo koy moom loolu mooy laaj yi fi dikkoon noo ngi jéggulu ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.